accident bi am 6 kilos 6 kilos ça veut dire quoi 6 kilos c'est 6 kilomètres ñu 6 kilos l'accident a eu lieu là-bas Macky était dans cette région de Tambacounda il y a à peu près quelques jours une semaine dix jours le 26 la Fadem, dem le 30 il a fait trois jours là-bas lam fa don def xam ngeen ko fan la Macky Sall doon fanaan ci guddi gi xam ngeen ko lam fa don def ci ay fétiche est-ce que xam ngeen ko lam fa def ci ay xërëm est-ce que xam ngeen ko Mo naan day tournée économique tournée wul économique Tamba ñëru ko Kaffrine ñëru ko dara ñëru ko ay fétiche lay samp ta fofu la koy sampé. avant muy fàllu président fofu la ko sampé. ay cumbukaayu Macky Sall ñi ngi entre Kaffrine ak kunda ngeen nelaw bu démé war def ay sacrifice pour le troisième mandat dem nan damay tournée économique di len sëlëm mobiliser état mobiliser mooy état yi bu guddee mu dugg ci biir àll bi dafa ay féticham te fétiche ay bakkan la ñuy laaj mooy yéen doomi làppate yéen ay dee nan yàllaa ko dogal lu ci yàlla yàlla yàlla dafa soxor ba di leen rey nii boo léegi mu leen di ate yeewu leen <coughs> pakot yi waxoon na leen ko yaa dix ans ana mu dem na yoonam ana ndongoloo dem nañu ñi nga xam ne ñëpp am nañu le bon sens yàlla ubbi na leen ba ñu gis yàlla wan leen ba ñu xam ñooñu suñu waxee dañuy gaaw a dee man mii di wax léegi ma dee parce que du ngeen ay nit da ngeen rey nit kenn mënu leen dimbali à 6 kilos le chiffre mystique 6 day ñëwaat ngeen na ñaata moor moo am y'a combien de moor ngeen ne ñaata moor moo am Pour le moment, ñaata moor ñoo am pour le moment lañ annoncé gu ñaata moor cinquante quatre cinquante quatre cinq et quatre ça fait neuf trois Macky Sall ñëw décrété trois jours de deuil am na wala amul trois jours de deuil la décrété trois la naissance de la puissance. 6, c'est le summum de la puissance, la force la plus forte de la puissance. 6. les francs-maçons aiment le chiffre 6 doublé 66 ou 666. Parce que plus nous double plus que nous en force.